Guédiawaye salaamaaleykum ASC Bokk Jom donc euh, Guédiawaye def deplacement ñëw fii seet si ASC Bokk Jom euh, xool naka la ñuy préparer seen match bi nga xam moo dox si seen diggante ñoom ak ASC Diso donc mu nekk euh, benn match bi nga xam te yaakaar naa ñaar ñaari équipe yi xamante nañaa ah, parce que daje nañ ay yoon yoon yoon ren daje nañ ci match de poule ASC Diso daal koy gagné 3 bi à 0 donc ñu jëm nag si seen demi-finale ASC bi ñuy seet si nag nekk na ci ASC bi nga xam moo gën a populaire mën nañu ci département bu Guédiawaye donc pas mal de trophées mu jël 22 trophées di champion zonal la nekk nekk fi champion régional jël fi euh, Ligue des champions donc euh, ASC bi ñëw du ASC bu ndaw mu war a dajanteeg ak ASC Diso seen benn mën nañ rival la donc mu nekk match bu nara a metti dimanche fële ci stade Amadou Barry mu dox si seen demi-finale entre ASC Diso ak ASC Bokk Job ñu. pare tuuti laaj coach bi moom naka lay waaj a match boobu nga xam moo dox seen diggante ñoom ak ASC euh, le coach adjoint Youssou Oussou du moins euh, bon du ko présenté parce que xam nañ ko ci milieu sport bi nekk na fi aussi euh, en tant que joueur ci ASC Bokk Jom donc mu nekk ren le coach adjoint donc coach ñu bàyyi la nga nuyoo après ñu dem ci question yi nga def sa présentation. bon maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw ah, vraiment lii lu lu rafet la. parce que vraiment nekkul loo xam ne. yàgg na di am c'est la première fois li am nag mais vraiment maa ngi lay nuyu di la delloo njukkal ak ñi ñuy seetaan ñëpp ah. voilà coach su euh, ren ngeen def euh, ngeen def euh, dix matchs si je ne me trompe ngeen joué bon ngeen encaissé dix buts dugal bi bi je pense ngeen am trois victoires trois matchs nuls ak trois defet yéen ngi en demi-finale départementale nekk aussi en demi-finale zonale. donc euh, naka ban bilan nga ma defal ci ci ci ci ci ci ci saison bi. bilan bi positif la parce que football dafa metti léeg-léeg nga gagné léeg-léeg ñu gagné la ni nga amee ambition pour dem gagné ji noonu la sa morom amee ambition pour gagné mais nag bu ñu ñëwee ñu am ci leneen rek soit ñu am victoire wala nii rek dañ koy sant yàlla parce que c' est pas facile ñëw surtout nawetaan nga ñëw demi finale zonal ñëw demi finale départemental c' pas facile quoi. voilà ñu gis ne équipe bi aussi bon mën nañ ne comme boo dugalee dix bi encaissé dix bi ñu gis ne li muy jël si bii bari na trop naka nga mën a jàngate loolu. non fi mu toll nii liggéey nañ ci lu bari bari. <laughs> grave grave nii liggéey nañ ci lu bari bari bari devant ci défense bi vraiment liggéey nañ ci am nañ ci yaakaar bi ñu ñëw lu mel noonu dootuñu dalati quoi am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. voilà donc ngeen dajeeg aussi benn équipe bi nga xam te ni woon ngeen en masse de mu dóor la 3 bi a 0 naka ngeen di waaj a match boobu. waaw match boobu ñu ngi koy waaj comme yeneen match yi rek suñuy doomi nday lañ nag parce que sport rek moo ñu boole non violence parce que ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi que le meilleur gagne. mais gagné woon nañu mais ñun it fi mu toll ni dañ taxaw pour gagné ko loolu la rek amul leneen ah. voilà boo xoolee seen dernière confrontation yi en deux mille euh, je pense euh, seize. moom moo leen éliminé en demi finale ci même stade bi. donc naka ngay waaj a mas boobu ak ki nga xam te aussi moo la gagné en même temps ci match de poule 3 bi à mooy ñu ngi koy préparé comme ni ñu préparé yeneen match yi vraiment. am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax vraiment waaw ñun daal ñu liggéey daal en tout cas suñ ñëwee bu boobaa rek dinañ xam ne ñun liggéey nañ daal l' essentiel. ñu gis aussi équipe bi day monter en puissance parce que ku xool bokk jom ci phase zonale bi ak départementale bi monter en puissance ban liggéey moo waral loolu. non mooy ñu liggéey rek. fi mu toll nii ñu ngi liggéey rek liggéey rek moo ñu war fi mu toll nii parce waa dëkk bi dañ yaakaar fi mu toll nii parce dañoo gëj ñëw demi finale sax au moins parce deux ans yi nii deux fois yëpp quart de finale la te équipe yu ndaw ñoo ñuy éliminé te diisoo moom suñu doomi nay lañ peut-être ñoo bokk nag ñoo bokk bàyyi mais nag football moo ñu boole bu jeexee rek jeex na. voilà ñu gis nga nekk ci ñaari tableau bi final demi finaliste départemental ak zonal est ce que yomb na aussi pour nga jouer ñaari tableau yëpp. non c' est pas facile mais nag dañuy ñaan nag egg ci ñaari tableau yëpp vraiment bu ñu sañoon final ci ñaar yëpp ah. Mm-hmm. waaw lan moo ne woon seen objectif da ci avant ñu lay jox équipe bi. ñoo jël zonal ak départemental mooy suñu objectif dem régional. waaw loolu mooy loolu mooy loolu mooy principe bi moom loolu mooy base bi actuellement. lan nga jàpp ne tey moom mooy gagné match bi contre ak diisoo. non dañuy fubal rek vraiment dañuy xool li mu indi ñu ni ñu xool li ñu indi rek après booba lu ci des ñun ñoo koy mottali daal. Mm-hmm. est-ce que réellement xam nga bi ngeen di joué. bu baax a baax a baax baax waaw bu baax a baax en tant que bi may nekk joueur daje naa ñoom lu bare bëri en tant que tamit entraîneur c'est pas la première fois bi mooy deuxième fois ma nekk adjoint entraîneur di daje ak ñoom quoi. ñu gis na massif ñu ngi koy reporté di reporté pour cause bi nga xam ñëpp xam nañ ci sur la violence mhm. donc yu ban message ngay am boo xam te moo ngi koy lancé daal ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay diisoo mooy bokk jom bokk jom mooy diisoo vraiment support nañ dem supporter ku gagné ñu xam ne gagné na sport la sport moo ñu ba sport moom boole la mais du tàqaliko quoi man non violence laay wax ni. vraiment man loolu daal laa am lu message boo xam ne moom laay quoi entre diisoo ak bokk ñoom vraiment course ñu lay remercier bu voilà ñu ngi ak euh, Eliman di capitaine ASC euh, Bokk Jom donc comme li ñu waxee sànq rek ñu def déplacement xool si ñoom naka la ñuy waajee match bi nga demi finale bi dox seen ak ASC Diso donc mu nekk ñaari mak. yi mag donc Eliman ñu ngi lay nuyu waaw ñoo ngi lay fay laay yéen jaajëfal bu baax baax si seen teewaay quoi. voilà donc ñu ñëw si match bi nga xam te dem na si seen diggante yéen ak ASC Disso mu nekk demi final ngeen daje woon match de poule mu dóor leen 3 bi à 0 naka ngeen di waaj a match boobu. waaw ñoo ngi koy waajee comme n'importe quel match rek dëgg la match yi ute na quoi waaw mais ñun ñëwewuñu comme genre esprit de revanche en pas vers la finale la jour bu nekk buy joué nga joué finale dañuy ñëw pour uti ji boobu. jéem a am ci xoolaat lu nekk suñu kanam. donc ngeen euh, joué match euh, comme ni ma ko waxee rek match pas de poule ñu gagné leen est ce que mën nga jàpp yéen erreur ngeen defoon. waaw waaw waaw ci loolu biir défaite boobu am nañ ci jàngat yu bëri tamit quoi ci kaw loolu tamit xëy na euh, ambition yi ñoo bokkuloon mooy ñun ba ñuy joué ak ñoom fekk na ñun ñu qualifié ñoom bu ñu pertoon match bi deux points lañ amoon xëy na instant bi du fekk ci course bi. comprendre nga comme dama doon damay gis ni ambition yi moment boobu bokkul. mais bii ganjël la gañe ou périr la boobaa nag dañ euh, xam mais ñun incha allah bor bu ñu yoreel la euh, par exemple ñun en tant que joueur bu ñu yoreel suñuy supporter suñu suñu quartier yëpp la te incha allah dinañ def le tout jëli ndam boobu andi ñu ko suñu quartier quoi. donc est ce que dina dif est ce que c'est facile di yomb nag tamit ngeen joué ak équipe bi nga xamante ni yaakaar naa ne match di waa esprit de sérénité rek concentration comprendre nga motivé xam nga pare pour jëli ndam bi quoi lépp lu ñu am euh, jëm ko euh, dugal quoi parce que match tamit boo dugal bi doo gagné waaw dañuy plus de concentration xam nga lu ñu am rek ci kanam jéem ko dugal taxaw gérer sunu match quoi. parce mu nekk ñaari ASC yu mag ah, ci ci zone 4 euh, match ngeen di jouer demi-finale psychologiquement naka ngeen di préparer match boobu. waaw esprit tranquille rek kenn yenewu ko dañ koy avant tout dañ koy oyofal waaw dañ koy oyofal quoi. après tout man message bu may sànni supporters yi yëpp muy bu bokk jom contre diisoo non violence surtout match la rek parce que diisoo bokk jom ñu fa munti nekk ñoo bokk ndey ak baay match moo ñu boole après match jeex na quoi mais l' essentiel que ñun on est prêt coup instant moo ñuy boole te moo ñuy tàggale tey jii bu ko sifflé woon tay tay tay ñun pare nañ pour jouer ko tay tay. ci côté médical aussi équipe bi nekk na au non pour l'instant moom ñoo ngi sant yàlla quoi groupe bi on est complet waaw kenn jàmbatul dara quoi sant yàlla bu baax a baax waaw. tey boo amoon benn message booy passé ASC Disso ban message la surtout sur la non violence parce que gis nañ li jot a xew fan yi waaw comme ni ma koy waxee rek ñoo bokk ndey ak baay quoi ñun ak joueurs yi suñu biir ñun xamante nañ bu baax a baax ñooy ànd di jouer man mii si ëpp foofu laay dem di jouer ay nooraan après nawetaan su jeexee quoi waaw ñu bañ tamit supporters yi yóbbaale ñu suñuy xel xam nga ay boo bul kii bu non amul sens. fair play ñu jouer match bi parce que après match bi ñoo bokk nday ñoo bokk baay ñun ñooy àndaat toog di booloo mais munoo ñëw ci match bi nga ne duma wax ak diw wala conseil yi lañ ma jox jël yëpp teg ci ay coté social après match bi jeex nga bëgg a wax ak kooku amul benn sens quoi football day boole mais xaajalewul kenn quoi loolu laa. c'est important football day boole mais xaajalewul donc ñu jouer ko ci fair play rek ah, ñaari ASC yëpp nag que la équipe gagne. merci euh, Mbaye Niane euh, di président commission sportive bu ASC euh, Bokk Jom la grande ASC. donc euh, monsieur Mbaye Niam, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Mhm, maa di fay bu baax. Mhm. voilà donc ngeen jëm ci benn match bi nga xam te ni Mouss contre ASC 10 euh, la. Mhm. ndaka ngeen di waaj a match boobu. waaw bon comme comme comme comme li ma fekk ngeen di wax yaa ak supporters yi sànq rek. football la quoi. et puis moo bi ma fekk ngeen mujjee mooy fair play. bon gars yi nag bon au début bon bëggon nañ peut-être diaboliser rencontre bi. mais bi fi wa zone ñëwee comme ni waxon waxoon l'autre jour rek. joué nañu ak Disso mu dóor ñu kenn déggul violence kenn déggul dara je pense que foofu lañu ñu waroon njëkkee sax suñuy xeex violence parce que boo équipe bu toll ni boo ko jëm taseeg diisoo mu dóor ko 3-0 déggoo xeex déggoo sànni xeer mais kenn médiatiser wu ko nga dégg safaan ba boo xam ne xamoo fan la jógee ñu médiatiser ko ba mu am ampleur boo xam ne nit ñi yaakaar nañ ne bokk ñoom du équipe bu violent waaw loolu moom il faut ñu reconnaître ñu ko ñu yàlla ni yàlla ñu dem ci jàmm yàlla jëf li gën daal et puis yàlla may ñu victoire bu leer nañ waaw ngeen joué ak ASC bi nga xam te ni je pense que joué ngeen en match de poule. ñu dóor leen euh, benn score bu nga xam te ni yaakaar naa ñëpp naan loolu moo xew ndaka ngeen di jëmee si match bi nga xam te ni équipe bi moo leen dóoroon en en match de poule. waaw mais football la rek. football moom da dem ñett mu am victoire nul défaite lim ñu dóoroon match de poule la c'est différent ak match boo xam ne élimination la demi-finale. bon ñun ASC Bokk Jom on a l'habitude tamit ci match yu mel noonu. bon li ñu jëlee woon ci match bële dina am ñu jàngat tamit erreur yi ñu jëfoon ba tax ñu dóor ñu et ñu ngi koy préparer daal sereinement waaw. voilà ñu remarque aussi que depuis mi 2006 je pense ngeen leen mujjee dóor ci diggante bi am na ñaari saison yoo xam ne dajewu leen donc psychologiquement naka la leen di affecté. non pas affecté sax parce que yaa naa ne bon pas pour polémiquer ko mais disons li ñu ko jëf si àddina mënuñu ko jëf daal jëfaguñu ko bokk. waaw yàlla su ko mayee année yi mu ñuy dóor bon. dañ koy def si cadre football rek waaw parce que nekkuñu fi ñun tam rek war leen di dóor tout le temps waaw mais yaakaar nañ ne cette fois ci bon dinañ jàngat si li li fi jaar yëpp bon yàlla may ñu victoire si bi ñu jëm daal waaw. fan yi ñu remarqué si benn scène de violence bi nga xam te am na fi ba loolu moo waroon ñuy reporter match yi donc ci diggante bi aussi am na loo xam te ni je pense que comme sous forme de pétition bu leen wax ngeen signé ko affaire boobu nan la demee. waaw bon parce que président bi moo demoon euh, représenter ASC bi et je pense que c'est c'est c'est normal. parce que nawetaan tamit fan yi liñ ciy dégg neexul kenn parce que nawetaan euh, pour man foola la ak ree non seulement ASC dañu jegante ci même zone li ma waxoon fii daaw ñun ñooy retrouver wu tey su senegal di football doo déggati ñu ne ayse bokk joom ASC diisoo ASC jiboo ñun ñëpp vers zone rouge la kon si biir senegal la ñun ñëpp ñu bokk et puis nawetaan pour man tremplin la pour joueurs yi mun fi jaar mun a dem championnat mun a nekk professionnel mun a servir après équipe nationale Ah, donc je pense que violence bi amu et puis sooy xol def tout tout le temps équipe bi sanctionnée. sanctionner dirigeant fait bu dul jeex ñoon peut-être te dafa am phénomène bu dugg te gaay dañ ko moy si tribune di parier violence bi ëpp tey suñu mënee sa nga tegoon cent mille ñu mënee benn geste bu ndaw rek di ko def pour perturber match bi pour sa xaas yu dem waaw loolu tam lu gars yi war a xool nuñ koy dindee si si si si si nawetaan la amuloon mu njëkk waaw. donc tey message ngay envoyé ñi nga xam ñooy ASC diisoo seen match bi ngeen jëm dimanche. waaw man li ma wax rek diisoo moom ba diisoo bokk jom pour man c'est la même chose tëli bi moo ñu séparé et puis jaxasoo nañ suñu biir ñun am nañu ay supporters foofu ñoom tam am nañu ay supporters fii football la. Nous sommes dinañ def li wara def ñu am sen dirigeant def wara def l'autre jour avec mon jour après ñun ñëpp dañuy ñu tej grillage arbitre bi peut-être ak jemi jour des bi bon que le meilleur gagne waaw. donc mu euh, le président commission sportive bu ASC comme fim ko wax rek ASC violence parce que gañe len fay yoon yoon parce que ASC bu Euh, ku gagné 22 trophées zonales nekk fi Euh, champion ligue ligue des champions dem fële Estella dor ko 7 buts à 0 représenté département bu Guédiawaye ci ay yone yone yone donc yakana amul te dara lu ñuy prouver fi à Guédiawaye donc ñuy dem aussi sen match contre ASC Diso aussi seen dëkkandoo la comme ni nga ko wax sànq dëkk euh, tali mo len séparer mu nek ñaari grande ASC donc ñuy ñaan ñaari équipe yëpp ñu joué ko ci fair play et que la meilleure équipe gagne ñu jox leen rendez-vous tout ci kanam ak ASC Diso. voilà ñi ngi ak euh, Zebal man yakana ci zëng lañ ko gëna xamé sax mo moo dirigé supporteru ASC Bokk Jom une grande ASC hein. ah avec 22 trophées monsieur Zébal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay di la gërëm ak sa teewaay ak yooyu yëpp ak sa caméraman gars yëpp maa ngi leen di gërëm waaw. voilà ngeen jëm ci benn mas boo xamante ne mën nañ ne mas derby la yéen ak ASC euh, Disso ngeen daje woon mas de poule ñëpp xam na ñu mu demee ñu gagné leen naka ngeen di préparé mas boobu en tant que ay supporters. waa waa mas boobu daanaka mas la rek kon yeneen mas yi. et que non violence ci gars yëpp. et que ñun ñu moom d'une manière général ñu ngi koy préparer sur tous les aspects et si domaine yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy préparer quoi xam nga man tamit maa ngi préparer côté ay son ak yu may fental waa diso loolu du dara mais ci cadre ambiance quoi cadre kii waaw et que non violence quoi loolu wax. kay voilà ku xam ASC diso xam na ne aussi mobilisation kenn du leen ko wax parce que stade bi vraiment dañ koy feesal yéen naka ngeen fas yéene ñëwee dimanche incha allah. waaw dimanche moom daanaka ñun moom jël nañ affaire yëpp teg

te dañ fas ne woo maa ngi woon nag képp kuy boo ko Jom rek dégg lii nga ñëw quoi nga ñëw kotuwaayu ñu ñu àndandoo dem stade quoi loolu laay ñaan. voilà donc yéen am na jamono yi fa am na lu fi xam ne jot naa xew ci diggante ñaari ASC yi muy si côté violence bi nga xam ne remarqué nañ ko ba loolu moo tax match bi ñu ko doon aj di acaat donc yow loolu lan moo ci sa xalaat. man moom naa la xamal benn affaire képp kuy man côté de ma part sama gars yi ak ñëpp ñu ma ñu may déglu dama yàgg wax ne ni violence amul amul amul sens parce que mbir mi kaf foo ak ree la loolu mooy football sax football boo ko jom loolu la ñu xamee woon waaw mais daanaka wàcc yoon nag munul munul ñàkk daal si si si si nit mais buñ la tegaatee ci kii bi rek waxaal la sey ressources ak yow say mbir nan la taajoo nan la fa yàggoon demee rek di nga revenir